njabootu Cheikh Moustapha ak sa gépp jàppante nañoo ak yow fasante nañoo ak yow kóllëre goo xam ne yomal xiyaamat ak bar la jëm njabootu suñu Abdourahmane gépp noonu lañ fasante ak yow ñu ngi lay ñaanal fu ñu toll di la xamal ne lii nga defal sëñ Touba ci dëkk bii su pay gi ñëwee di nga xam ne sëñ Touba rekk jaral liggéeyal ndax moo waxoon ne uxiinu kullu muslimin wa muslima wala ulaahi daran man salama man maay avocat défenseur bépp jullit bu jigéen looloo sababu sëñ woo tarixa yëpp ñu daje fi bu góor bu jigéen rek ndax sëñ Tuubaa si avocat défenseur maa ngi lay xamal ne sëñ Kara Mbàkke la sëñ Kosom xalifa sëñ Moussa Absa yebal muy taawam sëñ Koso di taawu sëñ Moustapha sëñ Moustapha taawu sëñ Mouraw Ball sëñ Mouraw Ball di taawu Thierno Thierno di taawu sëñ Touba kon Daaru Muxti gépp ñëw nañ fi sëñ Xaadim ñëw na fi léegi dégg ngeen fi wax moom sëñ Abbas te lam wax la Daaru Muxti gépp wax waaw ndax ñun xam nañ ko xam nañ fi ko teg kon sëñ bi ma lay xamal ne le 19 ñun liñ lay ñaan nga may ñu fu suñu fetal yi tàkkee fii rek dana yëngal Ndakaaru ba ñëpp xam ne Darou si ñëw ñëpp ñëw kenn du des yàlla na la yàlla taxaw ndax yow la kat yow la sëñ Mbay Jaxate waxoon sëñ Tuubaa moo la dal sëñ Tuubaa da génn ko Ababacar mu am na ko janj janjati ma àdduna may bëgg a yóbbu sëñ Mbay ne bërëg ne ko yow ca nga woo mbër yëpp daane leen ñu xëy di miim nga woote ci bëccëg daane leen ñu far ne xëy ku lay sóoru day ndaw rek tey ndaw lu kenn yaru ne asal kuñ yar loo wax mu def ko te sant danga ngaa bari ab xam-xam réyum xel te dëru fit réyum judd nangoo suufe gëm yàlla yaa ñu tiim sëriñ nga bu far dib sang dib jant dib gawar di buurub jullit dib jaamu ko tax nga mbër yëpp luum yow wàlliyu nga ab tap nga ab muñkat nga yaa jafeñ ku tedd nga yaatee ñiy bërëx ñëpp bokk géem sëñ Tuubaa yëkkati loo xam ne ko surtout loolu ma kenn du tàkk bay géem kon yàlla yàlla may nga yàgg fi